Picasso euh, artiste le bu bo xamni ni ne euh, espagnol la mais France euh, manam Paris la doon deuk fuk ak juróom ci ay œuvre d'art yu Picasso ñu ko exposé ce musée des civilisations noires bu Ndakaaru juróom fukki at gannaaw bi fi gëjee. bima ma duggasee ba gis yenn œuvre yi gis photo yi gis texte yi sama dama ku yu bari parce que xeyna na xale woon laa bobu mangi am xeyna ay âge 5 ans wala 6 ans wala 4 ans ci 72 mais mangi ngi ko musée dynamique bi nekkon ci corniche bi. liggéeyu Picasso delluwaat fii ci Sénégal dafa nekk symbole parce que Picasso bi mi ñëw fii en 72 moom ci boppam ñëwul waaye œuvre am moo ñëw en 72 dafa nekkoon événement bu rëy am ci benn musée bi loon tudde musée dynamique tey mu nekk 50 ans maanaam jóge nañu vingt 20e siècle dugg 21 e siècle jóge nañu musée dynamique dugg musée des civilisations noires. té lim fa yëgoon rek la fi yëgaat tay motax euh, mën na wax né émotion dal moma ma tay exposition bi ñu Picasso à Dakar di delloo ñukal artiste bi di Picasso naam musul tek tankam fi ci Ndakaaru waaye li ñu japp moo di ne ku am cofeel ci Afrique la. suñu sculpture yi statuette. yi. yooyu yëpp nag Picasso da cee jàng am ci jàngat yu wér ba pare nag moo ko permettre nag mu am dimension boobu di ba ba léegi nag dañuy wax Picasso dañuy dañuy xalaat art africain. artiste bu mag la.

am ci style yu euh, yu yu propre yoo xam ne ni moom moom moom lañ koy ràññee donc loolu noonu dafa yëkkati art africain art ak cosaanu Afrique mais dafa yëkkati tamit art ci boppam parce que Picasso instant bi nii art aaram ci art yi gën a seer ci àdduna bi ci la bokk. looloo ko rapporté lii mu am. waaw ah, donc ñun ah, dama yaakaar ni bii ah alors eh, dañoo joxul gëdd ah, li nu moom. mais mën nañoo jàpp ni Picasso euh, am na destinée am na maanaam ñu bari ñoo xam ne nii jàng nañu ci ci ci ci aaram te gëstu nañ ci ba euh, euh, créer lu bees. leneen li nga xam ne jàpp nañ ko ni. waruñoo gëj di ko amal si ndimbalu kilifa yi ndax ñi nga xam ne ñooy tuut tànk yi. gën see mën a exposition bi daal lu baax la Picasso Dakar moom lu baax la léegi damay ñaan rek ñu bàyyi musée bi xale yi di ci ñëw gratuitement ñoo xamante ne xamuñu art xamuñu peinture xamuñu artistes internationaux yi ñu mën a ñëw ñu bàyyi leen ñuy dugg gratuitement ñu indi école yi ñu indi xale yi sensibiliser leen ci art. ñu ngi ñaan mën a am yeneen exposition yu mel nii autorités yi accompagner leen parce que li ngeen gis yëpp li ngeen gis fii yëpp xam il faut des moyens humains la logistique avec xaalis pour mener a ci niveau niveau exposition humaine.